hul haqaa'iqi fawqa Mamadou Lamine wafaaqa alal faxwaaxu miskul adillati kenn du yoneen ba ibnul muhayyam nee na ulal mustawa akrim bi afdalul ula mustawa yuxassiru fiiha al xawlu minna wa in ala njol makka yaa leen gën huwa al axiru al maxduudu fi lfadli awala tabaraka rabbul kammalal majda wal ula njol makke yaa leen gën ibnul muhayyab neena li afdalil mabxuusin li afdalil millati njol makkay waaja boro ibnul muhayyab neena arruuxu ala dikri nabi waxtadi mamadou lamin wa arju bi في الخسر تكريم موردي لأني أبي المختار والله أقتدي أنت يا محمد سنيت إلى مدح نبي محمد يونن مديغ كأسرار الحمائلة التي جل ما كيالن جن بريم المحيب نينا ملأت بي قلبي وعيني ومسمعي جل ما كيالن رو wa adnaytu bi zikri fa wa bi imai walim laa wa fiihi arbau ayu arbain njol makka yaa leen gën njol makka arbau ayu arbain diyaa un liman yarnu wa xukumun liman yai yonen wa rawxun liman yasku wa rawxun liman yaqdi yon ti yàlla mu madu kon fa yaa rabbana fi ardi wa samaa'i yow yàlla amitna ala tasdiqina bi istifaa'ihi njol makka yaa leen gën fa inna wadul aswaa'i aya bidaa'i yasuqu alayna haysu duna liqaa'i kenn du yonen ba isa diinu lam yakmul fala kanati dunya sayyiduna muhammadan rasulullahi alayhi salaamullah sallallahu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi su ngeen déggee bàkk boobu ngeen xam ni waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñoom ñoo woote waa kër Cheikhu Canaba maam Ahmadou Ndak sek euh, ci ndigalal Baye Serigne Assane sek xalif général bu Canaba ak ñi mu bokkal euh, liggéey bi Euh, njabootam sëriñ Cheikh Amadou Seck imam ratib bu Canaba euh, le chef de village sëriñ Alsaan Ñaana Seck ak ñi mu bokkal euh, liggéey bi ak njabootu maam Ahmadou Ndak Seck yëpp waa kër maam Daour Diop muy waa Canaba Xabbaan di njabootu maam Daour Diop bi nga xamee ni moo àndoon ak maam Ahmadou Ndak Seck jépp jiyaar yi nga xam ni jaar nañ ko ci réew mi muy Mbijam di Saaw di Jàmmu Njaay di Pete di Añaam ba ci Samba Sadio góor ga nga xame ni moom moo àndoon ab maam Ahmadou Ndak moom la njabootam di wooteel ñaan goo xam ni ñaan gu mag la muy gàmmu cana ba Xaban ren nag ñu nekk toll ci trente-cinquième édition euh, da bokk ko ak mbokk taalibe yi waaye bokk ko ak kilifa yi macha allah war a woote rek woote boo xam ne woote bu yaatu la ànd ci ak njabootam ci jataay bi ñu toog ak suñu mag suñu kilifa euh, sëriñ xalifa Diop mi nga xame ni moom moo jiite njaboot gi fii ci jataay bi waaye ci ndigalal Baye sëriñ Maodo Diop mi nga xamee ni moom mooy xalif euh, maam Daour Diop waaye ci ndigalal euh, suñu yaay macha allah moom mi nga xamee muy soxna Awa Diop mi nga xamee ni moom mooy doom ci maam daawur Diop macha allah yàlla na fi yàgg te ci barke Seydina Mouhamed salaahu salaam sëriñ Cheikhou Tambédou macha allah mu ngi ci jataay bi. Euh, Serigne Modou Ngom Diop euh, mu ngi ci jataay bi euh, Serigne Baye Serigne Diop ak Serigne Baara ak soxna yi nga xamee ni ñoom la ñu àndal ci liggéey bi ñu toogal fi njaboot gi toogal fi kilifa yi war a woote nag jëm ci gàmm gi nga xam ni ñu ngi ko war a woote le 6 mai 2023 ca Canaba Xaban ca kàddu gu njëkk ga Baye Serigne Diop dinañu fàttali cosaanu gàmm ga fàttali ñu histoire maam Daawur Diop bu paree dina ci teg ab woote jële ko ci kilifa yi wàcce ko ci njaboot gi waaye bu daaneelee moom moom Baye Serigne Diop euh, Serigne Modou Ngom Diop mi nga xamee ni euh, moom la kilifa yi boole ak daayira yi moom la kilifa yi boole ak fédération dina yëkkati doom tamit euh, soññi daayira yi nga xam ne ñoom ñoo aju Canaba xabban daayira yi nga xamee ni tamit ñoom ñoo aju kër Seexu Canaba mu soññi leen rek jëm ci gàmmu googu bu daanelee moom Serigne Modou Ngom Diop Serigne Seexu Tambédou di chef de quartier Mame Daour Diop fii ci biir Canaba dëkku maam Ahmadou Ndak Seck moom tamit dina yëkkati woote bu yaatu euh, teg ci woote rek euh, complété macha allah euh, bu ko defee muy woote boo xam ni dina jóge ci cheikhu Tambédou mu chef de quartier. bu daaneele soxna yi ñu ngi fi li Serigne Ibrahima Seck waxoon góor baax na jigéen baax na bu Samba Sadio dekk dekka dekkaatoon dinaa jël li nga xam ne mooy fital yu guddi yi jox ko soxna yi moom soxna Awa Diop ànd na ak soxna Assou Ngom ànd ak soxna Kan waaye ànd ak soxna Mbène Badiane. moom dina yëkkati seen kàddu euh, yëkkatil ko ñi teew ak ñi nga xamee ni seen tànk dis na ba agsi wuñu ci jataay bi suñu daaneelee nag kàddu yooyu yëpp Baye Khalifa Diop mii kilifa jataay bi moom tamit euh, dinañu defal ñaan rek euh, bu ko defee mottali kàddu yi ñaanal ñu ñu joxante rendez-vous incha allah samedi le 6 mai 2023 ca Canaba Xaban yàlla na yàlla yóbbuñu ci ak jàmm ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa lépp loo xam ne ñaan nañ ko fa rek yàlla nangu ko ci barka weeru koor wii ñu nekk kon kàddu gi mu ngi jëm ci Baye Serigne Diop aouzu billahi samil alim min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit ñi ñoo ngi leen di nuyu fii ci Canaba Bawal di capitalu kër maam Cheikh Thiénaba Amary Ndack yal na yàlla fayal nu ko noo ngi nuyu ñu ñuy déglu ñëpp à travers Thiénaba TV ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci biti réew di leen ñaanal jàmm yàlla nañu fekk seen jàmm ci sunu kàddu yi ñuy dégg noo ngi nuyu Baye Serigne Hassan Seck xalifa général de Tidiane Thiénaba yal na yàlla guddal aw fanam te bépp ndam bu Cheikhu Thiénaba mësa am yal na ko yàlla defal ndam lu kawe ndam yooyee ñoo ngi nuyu imaamu ratib bay Cheikhu Amadou Seck yàlla gën koo dëgëral ci diine ji ak mboolem mbootu ñi nga xam ni chef de village ak sëriñ ñaana Seck ak ñi mu seqal dëkk bi ñu ngi ci biir nuyoo yooyu tabaarakallaahu ñu ngi koy jaarale ci travers euh, Thiénaba TV sëriñ Alpha Sarr ak sëriñ Moussa Gueye sëriñ Talla ñu jottali ñu ko waa euh, réseau bi yëpp ñoo ngi waxee ci kàddu ndigal tabaarakallaahu comme ni ko sëriñ Ndiame waxee at mu ne ñu def ko muy gën di rafet di gën a baax di gën a barkeel waaye yàlla nañ ko yàgg di def euh, ki ñu koy defal moo toll noonu ndax barke sunu borom nee na mën naa nangu lépp ba mu des barke euh, maam Daawur Jóob yàlla daf ko dimbali mu liggéeyal yàlla liggéeyal rasulullaay liggéeyal lislaam waaye liggéeyal nitu yàlla nitu yàlla boo xam ni ñëpp nangu ak nitu yàllaam waaye ñëpp nangu ak ngërëmul yàllaam muy Cheikh Thiénaba maam Amary Ndaak waaye lislaam rek boolewu leen ak mbokk ak deret da leen a njëkk a boole xam ngeen ni maam Daawur mi ngi juddu ci atum 1850 ca Farboot eh, booba diine lislaam dugg na ci Kajoor dugg na ci Njàmbur dugg na fi bari waaye xam ngeen ni li ñuy wax ak ceddo dafee desoon waaye foofee mu ganee jamono mu di Farboot boo fa demee xam ni lislaam lu fa yàgg la boo toppee seen cosaan ba ca ci Ahmadou Maxtaar Ndumbe Jóob mi nga xam ni ca jamonoy 1600 la fi sampoon daara di tasaare lislaam di jàngale alquran moo tax farboot googu dañuy wax naan farboot la waaye nee nañ forboot la ndax njabootuk lislaam gi la doon jéem a dajale moo tax mu doon wax njabootuk lislaam gi naa leen for boot moo tax ñu naan farboot foofee la maam daawur gane àdduna ci atum 1850 baayam di maam gilaay soboro bokk ci njóobeen bokk ci garmi yi ci réew mi waaye teel a xam ne lislaam mooy cëram mu jël ko jox ko maam amari ndaag ndax maam dafa bokk ak way juram maam Kumba Njaay Sekk looloo tax mu di jarbaatam looloo tax maam Daawur maam Amari Ndaak moo ko jàngal al alquran moo ko tarbiya ba mu wàcc ba delluwaat kër ay juram waaye foofee nag la ko ndigalu yàlla fekk ndax maam Amari Ndaak bi ko maam Cheikh woo woowee bind ko bataaxal ni ko dañu war a wuy ji woote bi yàlla liggéeyal yàlla ci jihaad ñamu yaakaar ni ñoo ko war a gunge ci mission boobu bokk na ci jarbaatam boobu muy Cheikh Daawur Jóob ak maam Maajo Jofaali dégg nga histoire di ko wax waaye booba ci ñaar fukki at benn dong la toll atam néew na waaye maam Amari Ndaak tarbiyee na ko ci pas-pasam ba xam ni su ko woowee ci toolu jihaad dina ko wuy si te fekk na sax booba buntu jamono ubbeeku ci moom ndax wax nañ ni demoon na ba armée bi fi nekkoon di armée française war ko rengagé mu doon bokk ci force Espagne si waaye ndekete cërëm du àdduna cëram mooy cërub yàlla moo tax bi ko maam Amari Ndaak waxee gaaral ko ni ko ah dañoo am liggéey bu ñu war a liggéeyal yàlla ak lislaam mu yëkkati kalimatu laa ilaha illallah te loolu mooy sa cër damaa bëgg ñu ànd ci daa bàyyi léppam tàgguwul sax yaayam ak baayam ndax baayam ak yaayam dañu ñu ko lépp lu la maam Amari sóob nanga xam ne loolu ngëneel la ci yow na nga ko def am nga ci suñu digal moo tax noonu la ñu jaaree moom maam Maajooja Faal yi fetal juróom-ñaari at jihaad fii sabilillaahi ba yàlla may leen ndam ñuy wër pàkk bii di ca Canaba Bawol diggante booba nag mu defaat ci ak njàmbaar ndax yàlla day def buuñaa bu la li bàyyi wu Ousseynou Xaar radiallahu taala anhu yàlla yàlla yokk leeram doon wax ni yàlla bu la naree fay da lay liggéeyloo moo tax maam Daawud bi mu liggéeyee ci jihaat ji ba noppi am li ko yàlla may ci biir jihaat ji dafa amaat bonus mooy bonus boo xam ni maam Amari Ndaag moo ko faggul ndax xam ngeen ni xare bi bi mu jeexee Samba Sadio dañ doon def track maanaam ñi nga xam ne mujaahidiin yi des ci jihaat ji nga xam ne ñoo sonal leen tubaab beek ceddo yi dañ ni buñ fi bàyyee benn grain grain boobu bu judduwaatee mën nañoo sonal kon nañu def track fépp foo xam ne mujaahid ni des na fa ñu jàpp la rey la moo taxoon foofee nga xam ne moo doon siège bi kër Ibra Penda Buyo dañ ko encercler woon kenn nangu fa woon ku fa dugg loolu nag moo doon jihaad bi nga xam ne maam Daawur defaat na ko mooy delluwaat kër Ibra Penda Buyo jëli bagage yi maam Amari Ndag yi fekk si waat ko fii ci Canaba Bawol loolu maam Daawur xeex na ko cinq looloo ko yóbbu kër Matar Xaali histoire boobu dafa jar ñu koy xam Kër Matar xaali dafa nekk boori Tiwaawan jege Kajoor mu doon point stratégique ndax ay mbokkam moom mi ngi gën a farbo farboot jamono kon xam na tund woowu naka la mën a def ba mën a dugg ci point boobu ñu soxla pour delloo si bagage yi cinq yooyu mi ngi nekkoon kër tafsir Moussa Xëri jóob mooy maami Baye Alaaji Sëriñ Diop imaam mi ngeen dégg kooku moo jur ku ñuy wax maam tafsir Njaga Diop ñoom ñaar bàyyi la ñu bokk juróomi at yooyu damay wax histoire ni lu jar a xam lan moo indi kóllëre tafsir maam Jaga Diop ak maam Amari Ndaaj maam Moussa Xëri mooma bi maam Daawur nekkee ci tooli xare yooyu pour delloo si bagage yi da daan waxtaan ak moom ci liggéeyu maam Amari Ndaaj ak fa mu war a yóbbu diine ji ndax ndonay maad yu dëgg-dëgg waxoon na ko ni Cheikh Canaba maam Amari Ndaaj lañ ko jox mu ne ko man de damaa mage waaye sama kóllëre ci yàlla fasante naa ko Amari Ndaaj waaye sama doom jii nga xam ne amagul fukki at ak juróom fasante naa moom kóllëre ci moom kooku mooy maam Njaga Diop doon na imaamu ratib fii ñiin fukki at ak benn kon kóllëre ga mu doon waxte te mësta gis maam Amari Ndaak defe naa ni yàlla defal na ko ci daje boobu mu nekk foofu di mottali am njàngam ba géeju ci wàllu xam-xam te la ko yàlla ubbee nag mu dem jëli bagage ci juróomi at yooyu ba fekk si fii maam Amari Ndaak wax nañ ni keroog bi maam Amari ndaag ñëwee fii ca Canaba Bawol ba sapp am xeej ab xeejam samp mandarga ni fii mooy ca Canaba Bawol fii la ko yàlla digoon wax nañ ni guddi googu keroog la ko maam daawud gis jaxran waaye lii firnde gis jaxran jooju mooy maam amari ndaag dafa julli fajar ba noppi rakkam maam buubu sekk mu ne ko buubu daawur miñ ne woon faatu na tubaab bi rey nañ ko dey gis naa ko bii si guddi dina ma fekk fii ci yoor yoor yow yaay sama seede nanga xam ni sax màndarga bi mu takk ca loxo ba loxo déem ba dafa am dagg-dagg ba takk na ca sagar bu ñëwee dina dina ko indaale la ca maam amari ndaag waxoon lépp daa am bi maam daawur yanoo bagage indi ko fii waaye wax nañ ne bi mu ne cëppeel bagage yi mag ñi ko fekkee woon yëpp dañoo gis maam daawur di jooy raam wuti nijaayam jëmu gëj a gis dégg naa bi mu ñëwee maam amari ndaak tàllal ko loxo mu fóon loxoom mu ne ko daawur de xanaa sonn nga ci àll bi mu ne ko déedéet mu ne ko ah li nga yàgg lool ci àll bi ak nii nga def ba sama bagage ñoo nga indil ma ko te sonnoo lu ko waral mu ne ko xanaa sopp la rek mu ne ko daawur gërëm naa la ngërëm loolu nag moo feeñ ci ak njabootam moo feeñ ci bis bii ñuy woote mu ne ko nii nga sàmmee sama waxande wi ba ba mu mucc ba dara yàqu ci yàlla na yàlla sàmmee noonu say mbir sàmm ko sa njaboot kon loolu rek dayoon na ñu jàpp bis war ci mën a sant yàlla ci loolu ñu yàlla defal kon maam daa Daawuda Ngoog mooy Canaba kon looloo tax ñuy woote bis bii di ko ci ñaanal di ko ci delloo njukkal waaye mu am cër boo xam ni ginnaaw bi maam Amari Ndaa génnee jamono mu yaatalaat woote Maadiw dem Jobaas fekk fa ay ñoo xam ni dugguñu ñu ci lislaam maam Daawur tuubal leen di leen wax loo ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah dugal nañu séeréer su bari ci lislaam di leen tudduloo kalimatu laa ilaha illa waaye jox leen salaatul fatiha ci ndigalu Serigne Thiénaba Momar Talla Seck ñu ànd ànd bu rafet ak baay Ibra Penda Seck ak Mame Madike Seck ak mboolem kuy mu Serigne Thiénaba ba mu demee xabbaan ay kéemaane bari feeñu ko fa moo tax boo ñëwee xabbaan léegi rek ñu ngi wax édition yi bay wax trente-cinquième édition bi fi maam Daawur génne àdduna ci atum 1935 la génn àdduna yeggaguñu 2035 waaye boo ñëwee ni nga gisee dëkk bi di évoluer ci wàllu développement ci wàllu infrastructure da ngay xam ne ki tëdd fii moo am barke. ndax lépp luy maye koom nekku fa waaye kafay fay maye koom tabaarakallaahu muy ku liggéey ba am ngërëmal yàlla fu mu tëdd foofu ngërëmal yàlla dafay sottiku. Baye Ndiame Gueye rahmatullahi aleyhi ridwanullahi yàlla na yàlla gërëm ko dafa wax ni Serigne Pata Seck ku ne xam ni. xaali mu kullu fadlin la dafa ànd moom ba tudd xàbbaan nee na mu ne ko ah fii de ku àndoon ak Cheikh Canaba ak Cheikhu Cheikhu Amadou ñoo fi moo fi tëdd mu ne ko nu mu tudd mu ne ko Daawur Jóob jarbaatam la woon bi mu Maamari Ndaa génne àdduna moo sanc fii ci atum 1897 ba tëdd fii en 1935 keroog sëñ Paate dani ko boo ma ko teeloon a wax samay dàll du ma ko duggee ci dëkk bi neena na keroog daa jël ay dàllam bokk ko ba keroog juróom-ñaari kilomètre sori ko door a solaat ay dàllam kon xam na war a may mujaahidiin yu tëdd xàbbaan loolu rek geroon nañu dem di ko siyaara am na jaamu yàlla bu ma wax bëgguma tudd turam ndax at mu ne mu ñëw te am na fa cër nee na ma lu tax ma fonk cana ba xàbbaan mooy dama keroog laa njëkk a gis yonent bi jëxëratan wala ma du ay nelaw maa ko gis ci tàntu cana ba ma xam ni kii yonent bi la moo tax ma fonk cana ba xàbbaan kon na kuy tànt ba yonent bi ñëw kon tabaarakallaahu bu ñu fa wootee ñëpp war a ñëw kon foofu rek lañuy ñuy yemale histoire boobu tabaarakallaahu bu ko defee nag eh, woote bi waa kër Cheikhu Canaba la ñuy njëkk a woo mooy njabootu lislaam gi tàmbalee ko ci bàyyi Serigne Hassan Seck mi nga xam ne mooy xalifa général Tidiane ba ku ne xam na ni premier daaw mooy premier édition ci xilaafaam waaye teewin wu rafet la fa teew waxtaan ca démb waxtaan wu rafet tabaarakallaahu ba léegi ñu ngi koy fàttaliku moom it ñoo ngi koy jël woote bi di ko tàmbalee ci moom ak waa këram woo ñi nga xam ni ñooy ñetti wasi kër maam Amari Ndak muy waa kër maam Talla Seck su ma ko joxoon Baye Aas mu doy waaye dama koy jox sëriñ Jibi di doomam nga xam ni moo mag ci sëti maam Amari Ndak yi waaye doon ki nga xam ni sët la ci maam Talla Seck ndax sëñ Ibrahima mooy woy juram bu ñu jëlee nuyu euh, woote bi teg ko ci loxoom waa kër maam Talla góor gu mag yëpp dugg bu ñu jëlee sëriñ Modou Seck Roqaya yàlla na yàlla guddal aw fanam moom it ñu ngi koy woo ci turu képp kuy njabootu maam ma Madické Seck yàlla na yàlla may leen ñu fekk ko jàmm te mën a teew waaye waa kër Baye Ibra Penda Seck ñoom it dinaa taxaw tuuti balaa ma leen di woo ndax dañ leen a woo woon woowin woo xam ni mooy daaw ñoom lañ njukkeele woon bis bi ñoom lañ pare ne woon bis bi dara jaale leen ko waaye ñu def ca taxawaay bu am solo rafet lool te waa Njóobeen gépp kontaan ci xalifa baay Maodo jóob ak Serigne Ibrahima xalifa jóob mi nekkal canaba Baye Maodo mu ngi yóbbante ay kàddu sant ci seen taxawaayu daaw ba ndax lépp luy teraanga yëg nañ ni li leen jox kat yëg yëgoon nañ ko def nañ ko ca tabaarakallahu mu rafet lool yal na yàlla yokk seen teraanga te seen xalifa di bàyyi Serigne Ibra Seck yal na yàlla guddal aw fanam ci moom laay jaar nag joye woote bi teg ko ci loxoom waa kër Baye Ibra Penda yëpp dugg tabaarakallahu ñetti wasi yooyu buñ ko génnee tabaarakallahu njabootu maam taala xam ngeen ni bari nañu am kóllëre ak maam Daawur ndax maam Daawur ak njabootam dañoo jaxasoog ak njabootu maam Talla Seck góor gu mag wax naa ni sama maam Njaga Seck mi nga xam ni maam Njaga Jóob mi nga xam ne mooy taawu maam Daawur maam Talla ko yar maam Serigne Jóob mi nga xam ne moom lañ ma tuddee di bàyyi bàyyi xalifa mii maam Talla ko yar maam Moussa Jóob maam Talla ko yar kon ñetti doomam ya ca gën a mag maam Talla ni yar ba ca ñi ci gën a ndaw ndax daanaka bi ñuy dëgër di am ñeen fukki at ci la seen bàyyi génn àdduna wàcc leen fi waaye maam Talla gunge seenu tarbiya tabaarakallaahu wax naa ne looloo tax ku mel ni sama maam Serigne Diop gis ngeen ni mu àndee woon ak Serigne Ibrahima sek te loolu maam taalaa ko cultivé bi maam Amari Ndaa maam Daawur génne àdduna da koo jël boole ko ak ki nga xam ni mooy maam Serigne Diop yóbbu leen Gosaas histoire boobu du fi xaj waaye pour wane la kóllëre yooyu doom par doom bu ñu tàmbalee ci Serigne Ibrahima Seck taw ba mën nañoo jël nuyoo bi joxaat ko sëñ Jibi woote bi ak sëñ Cheikhu Amadou ñu yóbbaale seeni rak kon ñu ngi woo njabootuk Serigne Ibrahima yëpp njabootuk Serigne Baye Mbaye Seck ñoo ngi leen di woo ñu ngi jël woote boobu eh, teg ko ci loxoy Serigne Maodo sekk Babacar moom mi nga xam ne wóllëre Serigne Maodo la mook Serigne Cheikh mu bàyyi mudli ñooy gunge Serigne Maodo saa di taaral bis bi kon ñoom ñaar ñëpp ñu ngi profité di leen woo kii ñi ngi koy woo ci turu Baye Mudli Seck ak njabootam Serigne A Seck borom ndigal defe naa ni ci turu daayira yi dina leen ko ci gën a woowaat waaye mook Serigne eh, Maodo ñu ngi leen di woo ak njabootu Serigne Baye Seck Serigne eh, Abdou Karim Seck tabaarakallaahu ñu ngi ko ci beral woote moomit it xabbaan lu ko ñor la ndax suñu kóllëre ak moom ñoo ngi woo njabootu ko sëriñ euh, Baye Abdourahim Seck yàlla na yàlla yërëm ko tabaarakallaahu bu ñu woowee sëriñ Ibrahima Seck moom at mu jot da daan taal otoom ñëw fekkee si wàcce kaamil bi moomit it ñu ngi ko ciy woo sëriñ Ibrahima kon yàgg say rak tabaarakallaahu ñu ngi leen di woo njabootuk bàyyi sëriñ Mouri Seck moom it ñu ngi koy woo di jël sëriñ Abdou mi nga xam ni mooy taaw jël nuyu woote ba euh, jox ko ko tabaarakallaahu bu ñu génnee canaba sax mën nañoo dem ba canaba kajoor xam ngeen nii ni ma Madické Seck boroom yàlla nee na yal na yàlla yokk ay leeram waaye eh, li ko jiitu foofee day feesu Baye alfa maamadu te sëriñ xalifa Bousso di xalifa bi balaa ñoo génn canaba ñu jox ko ab woteem moo njabootu Baye alfa yëpp waaye ma dikke dafa jëloon njabootam duwal ko kër maam Daawur muy kóllëre gu sax tey mu am fi ay sët kon mu ngi woo sëriñ Pape Seck Mourtada ak njabootuk sëriñ ma dikk yëpp ak waa kër njabootuk Baye Abdou Aziz sekk ña fa ne ñoom sëriñ Talla ak tabaarakallaahu ak ñañ ko bokkal waaye suñu génnee Kajoor mën nañoo dem ba Canaba Mbuur woo sëriñ Pape Mourtada Seck mu sëriñ Ousmane xam ngeen ne sëriñ Ousmane mbokk la ci maam Daawud ndax soxna Astu Balla Jóob muy mbokk goo xam ne dafa rafetoon ginnaaw loolu tamit tarixa bi dundal ko bu daan ñëw Canaba da ngay defee ne xalifa général bi mooy ñëw moom Baye Ousmane tabaarakallaahu waaye sëriñ euh, Pape Mourtada Seck mu yaruma te baax tabaarakallaahu at mu jot noonu rek lay def kon ñu ngi koy woo moomu njabootam tabaarakallaahu dañuy jàll foofu nag dem ba Canaba Gusaas fekk fa tabaarakallaahu euh, dem ba cabe sax bu ñu neexee dem ci Serigne Abdou Aziz ma mag tabaarakallaahu ak njabootu euh, Baye musaa Cabe wàcc si waat ñëw ci njabootu Baye Serigne Saada Baye Serigne Saada njabootam a nga fa Serigne Taalaa nga fa waaye sëñ Abdou Wahab a nga fa mu yóbbaale tund woowu yëpp defe naa ni ba juróom-ñaari Canaba yëpp bàyyiwuñu kenn. dëkk bi nag amoon na ay muxaddama ki kóllëre yoo xam ni ñoo àndoon ak maam Daawud ci liggéey bi ñu daan liggéeyal lislaam ñu mel ni waa Paaleen ñoo ngi leen di woo ñu ngi mel ni waa Njax Njax nag xam ngeen ni maam Daawud bi mu ñëwee ba Bawal ginnaaw li ma fi nettali ba mu waree am njaboot maam Amari Ndaak da koo sant mu dugg kër maam Siré Dia mu jël fa sunu maam maam booy Dia moo jur ñoo ñooñee nga xam ne ñoom la taawloo kon waa nja ñoo moom bis bi ñoo ko bokk te boo demee biir canaba nja kërug nja ma nga fa waaye boo demee ca wet wa da nga naan nja ma nga ca dëkk ba cawet ga kon waa nja am ngeen ci cër ñu ngi leen di woo ñu ngi woo it waa ndongo yéen xam ngeen ni maam daawur bi mu demee canaba xabban sanc ko waa ndongo yéen ñoo ko doon wéttali tabaarakallaahu maam abdu ndongo wax nañ ñi sax ma nga fa tabaarakallaahu loolu kóllëre gu yàgg la kon ñu ngi woo waa ndongo yéen yëpp ñi ngi woo it waa mbuubeen nga xam ne seen kóllëre ca jihaat ja woon xam ngeen ni keroog bi nga xamee ne maam góor mu Mbuub din bu mag ba bi mu génnee àdduna maam Talla Seck dane bu ko kenn laal te maam Daawur ñëwul bu ñëwee naka taxawe ndax seen kóllëre démb la woon kon waa mbuubeen ñoo moom bis bi ak waa kër maam ma jimmi Aminata ñu ngi leen di woo ci bis bi ñu ngi woowit waa mbuubeenu maam ngusaani maajooja ñun dañoo am ak ñoom kóllëre nii nga xamee ne Serigne Mouhamadou Bachir Mbuub mooy sunu cër ñun waa kër maam Daawur ci waa kër ngusaan ndax kóllëre gu yàgg waaye damay wax ni sama maam sëriñ ba mu taawloo maamam la ko tuddee maam ngusaan ñu bari xamuñu loolu imaam Malik mii ngeen gis maam ngusaan lañ ko tuddee ndax wax nañ ñi yonent bi lañ ko naroon tuddee sama maam keroog maam ngusaan dafa daa ci yonent bi ba mu daanu ni ko tuddee naa la doom ji yow mi nga xam yaay tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kóllëre googu yàgg na ñu ngi woo waa kër maam ngusaani mbaajoo ji yëpp ñoo ngi woowit tabaarakallaahu famille yu ciise xam ngeen ni ciise maam bookar ciise dafa kóllëre woon maam Daoud jóob du fi xaj ma nettali ko waaye alaaji taala siise yal na yàlla yokku leeram ku bëggoon Thiénaba xabbaan la euh, sëriñ Modou Cissé mi ngi may nettali fan yee rek ni ma xabbaan lu tax ma fonk ko mooy alaaji taala nee na dafa feebar benn bis ba ñu entré woon ko hôpital door koo génne ñu woote xabbaan mu ne day dem nee na famille bi yëpp dajaloo ni ko munoo dem ndax sa santé mu ne waaye man bëgg naa toog waaye naka laay def bàyyi sëriñ jóob loolu doon wax ju ma ci man ni ma bu ma bu dul woon kenn bàyyi sëriñ Diop ni mu mel ci man rek war naa tax ma xuus dem xabbaan keroog dañ koo mujj wutal oto mu ñëw xabbaan waaye kero wax na fa wax yéeme moo tax saa yu ñëwee xabbaan dinañ ko fa defal dog ñaanal ko alaaj taala siise yàlla na yàlla yokk leeram waaye ñi ngi jaar ci famille am woo waa ciise yëpp tabaarakallaahu ñoo ngi woo njabootug bàyyi sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane sek ndax wax dëgg yàlla gàmmu xabbaan yàgg naa kulóoru waaye ni ko bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane def ci xilaafaam wax dëgg yàlla couleur bu jéggi dayo la loolu yàlla na doon yërmandeem yàlla na doon tamit yokkuk leeram waaye ñi ngi ciy woo ak njabootu Serigne Modou Seck mi nga xam ne mooy xalifaam ñi ngi woo njabootu Baye Jibi Seck Baye Jibi sekk bu ñu woowee Serigne Talla sekk sénateur waaye jël woote boobu teg ko ci loxoy Serigne Souleymane sekk borom xaas mu yóbbaale njabootu Baye Jibi Seck gépp tabaarakallah njabootu Baye Serigne Ousseynou sekk borom sikkar leen seen sikki dañ euh, wax naa ni ñoomi it dañoo am cër ci kër maam Daawur Eh, eh, déglu xisa boo xam ni bàyyi sulay lay mbiri ne moo ma ko nettali ni ma sëriñ Ousseynou day bi ñuy nekk xale ñun bu ñu daan namm ndawal dëgg-dëgg dañuy doxee fii ba cana ba xàbbaan fekk maam Njaga Jóob ndax maam Njaga dafa aada woon bu ko wàccee kenn seetsee day day day day tëral gàtt nee na bu ñu demee dina leen njawal mbubbu def ci mbiskit def ci xaalis ñu door a dellu si waaye nag kenn sañul ñëw xàbbaan rek jubal ci néegam nuyu ko bàyyi su lay nee na kenn ñemewul woon loolu lu dul bàyyi Ousseynou xaar nee na ñun buñ daan ñëw ci penc mi la ñuy taxaw waaye Baye Ousseynou moom day jéggi ñaaj ubbi buntam nuyu ko mu ne xanaa kii góor say la mu ne waaw mu ne ko yow rek yaa sañ lii kon kóllëre googu yàgg na ñi ngi woo njabootam jël woote boobu teg ko ci loxoy sëriñ maam Alioune Seck ak njabootam yàlla nañ ci yàlla may ñu fekke ko jàmm waaye ñoo ngi woo tamit mbooleem kuy njabootu kër gi mënuñoo fàtte waa ngëyeen ndax maam daawur mooy mbokkum waa Canaba dafa bokk ak waa ngëyeen ci wàllu ndey Euh, maam Daawur maam euh, Biram Mbay Fay moo ko jur Biram Mbay Fay ak soxna Géy Fay ñoo bokk ndey ak baay soxna Géy Fay jur soxna Asta Joxu soxna Asta Joxu jur Sëriñ Ñas jur euh, Faat Ñas jur tamit soxna Awa Ñas kon noonu la bokkee ak Sëriñ Ibrahima waaye bokk ak tamit Sëriñ Taala Géy ndax ñoo bokk ndey tabaarakallaahu moo tax waa Ngéyeen ñu ngi lay woo jël jël woote boobu teg ko ci loxoy Sëriñ Tafsir Mor Géy yàlla na yàlla gënal dëgëral ko ci barke ibnu Moye bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ak Serigne Ndiame mi ko fi toogal ñoo ngi woo it njabootuk tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñoo yor kaamil bi njabootuk Baye Ousseynou Khoudia di jël woote boobu teg ko ci loxoy Serigne Góoru Imaam mi nga xam ne at mu jot mooy taxawee kaamil bi ba mu rafet waaye ànd kook magam sëriñ Baye Diop joor moom nee na sirru bi newoon Canaba yóbbu na ko xàbbaan loolu la ko Baye loolu la daan toonee Baye Cheikh tabaarakallaahu kon moom it ñu ngi koy woo tabaarakallaahu woote bi daal ñëpp lépp ñëpp da cee nekk moo tax bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne sunu làmmin fay na la na nga xam ne tabaarakallaahu ñëpp la ñu bëgg a woo ndax ñëpp ci bokk. bàyyi sëriñ euh, Pape Seck Murtada Imaam moom it ku ne xam na ni euh, sunu kóllëre ak waa kër maam Daawur at mu ne mu ñëw ziyaara fekkee si kaamil bi dafa ay dog dafa ñaan moom it ñu ngi koy woo ci turu Baye Maodo ñoo ngi woo waa Congo neen gépp tabaarakallaahu di woo kilifa ya fa nekk ak njaboot ga fa nekk bàyyiwuñu leen. ñoo ngi woo tamit waa Payen tabaarakallaahu ñoom it ci kóllëre lañ bokk ñoo ngi leen di woo tabaarakallaahu ñoo ngi woo waa Paalen gépp Paaleenug maam Njugo Bige ak Paaleenug maam euh, Maajoojo Faali nga xam ne kóllëre démb lañ ñoom it tabaarakallaahu ñu ngi leen di woo. ñoo ngi woo waa kër maam Buubu Sekk gépp ak waa kër maam Makan Sekk gépp waaye di jël woote boobu te ko ci loxoy Baye Moussa Mirina Baye Moussa Mirina at mu jot mu ñëw ànd ak Serigne Modou Seck Roqoya teewal njabootu waa Médina gépp te waa Médina googu dañoo amoon na ñu kóllëre ndax suñuy maam nettali nañu ni maam Njaga Jóob mi nga xam ni moom la fi maam Daawur bàyyi woon ak maam Buubu Sekk dem nañ ba mel ni ay siix tabaarakallaa kon wane ne kóllëre googu yàgg na yàlla nañu yàlla may ñu fekk ko jàmm ñu ngi darajaale ren bis bi Cheikh Saliou Mbacke ibnu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul yàlla yàlla yokku leeram ren moom lañ ko darajaalee ndax kóllëre ko waral xam ngeen ni Serigne Saliou Mbacké dafa doon doomi Serigne Touba joo xam ne dafa teel a génn sanc daara daara jim mu njëkk a sanc en 1934 la ko sanc ci got waaye daara ja ca topp en 1935 la ko sanc ci xabaan looloo tax suufu xabaan bi mu fee ñëw maam Njaga Jóob la fa fekk wax nañ ni booba moo doon sax chef de canton waaye keroog bi mu soxlaa suufu xabaan moom moo ko doxal ba dogal ko tool foofu mu samp fa daara kon loolu kóllëre démb la moo tax waa njóobeen bu ñu daan dem Touba bu ñu nee ko sëti njaga joobi ñëw nañ sëti maam daawri mu ne ñooñ de samay mbokki démb lañ samay kóllëre lañ daal di wax ne ana soxna diw ana soxna diw soxna diw moo ma daan fóotal sama yére soxna diw moo ma daan may ma naan su ma tollee ci tund xabaan kon kóllëre googu la ñu bëgg a sàmmaat dundalaat ko moo tax ñu delloo ko a Cheikh Saliou Mbacké ñoo ngi woo euh, njabootam jël woote boobu teg ko ci alxalifa Serigne Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy xalifaam kon ren na ko ñëpp xam suñu kóllëre ak sëriñ Saliou la ñuy delloo njukkal moo tax ñu tuddee Serigne Saliou Mbacke bis bii di Thiénaba Xabane la 6 mai yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki Thiénaba ak euh, àdduna bépp ñu leen di ziara euh, di leen jéggalu te jégal ñëpp di ñaan yàlla yaan yàlla boole jéggal koo xam ne man dama wax kat. waaw wax dëgg yàlla àddina ku ñuy yónni moom ndaw boom day dox yónneen rek kon dañuy nab dabi rek ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di sant maam Amari Ndaak ak maam Daawar Diop anañ ko bokkal di ñaanal yàlla yal yàlla yokk seen i leer yal yàlla dugal leen àjjana fi te dëkk leen fa di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw comme ni ñu ko waxee rek ni ko sëñ Baye Diop ku dégg kàddu gi xam ni waa kër maam Daawur Diop ñooy xewle te bu ñee maam Daawur mooy maam Amari mooy maam Maajooja Fall ndax dafay wax ma ni maam Daawur da nekkoon jàmbaar islam ba ñëpp xam ko ah, yàlla dogalit ak njabootam fa nga xam ni fa la tegoon tànkam njabootam yëpp teg fa seen tànk kon loolu jar naa sant yàlla ah, dañuy dellu rek nuyu Baye Cheikh Thiénaba ba di ko ñaanal yàlla panu gudd ba ànd ak wér di ñaanal xalifa maam Daawur sëñ Maodo Diop yàlla guddal fanam bi di suñu bàjjan Adja Awa Diop mi nga xam ni moom moo fi des si njabootu maam Daawur si lu maam Daawur jur ko ñaanal yàlla panu gudd ba ànd ak wér di ñaanal ñëpp di ziara di wax ne rek bis bi ñu jublu muy bisu maam Daawur Diop di gàmm Thiénaba Xabaan ci la ñuy wax rek Euh, di woo daayira rey si ndigalu as Asek borom ndigal man moo jiite fédération de Canaba euh, ñu ngi koy woo di woo sëñ Adama sekk mu bàyyi taala xaar ak bàyyi Jibi sekk mu sëñ Souleymane sekk borom xaas sëñ Mohamed Seck sëñ Baye Moor bu bàyyi taala xaar ak ñoom seen taxawaay ñëpp xam na ko si gàmmu Canaba te it sëñ As kilifa yi ñoo yëkkatoon gàmmu gi teg ko si loxoom. jiital ko kon gàmm gi gàmm Cenaba mais gàmm sëñ As Seck la borom digal gàmm la di gàmmu fédération bi ndax sëñ As bu jiite fédération bi yëpp te gàmm gi su loxo dañ ko teg ko ñuy profité rek di woo daayira yi di woo Fisel Mbadaan daayira Fisel Mbadaan daayira mbuur daayira campement daayira Kër Bakari euh, ak daayira Kër Ibra Fall di ci delluwaat di woo daayira Suluf daayira Béer ak daayira Gollam ak daayira Jandeer dala di rek daayira Thiès ko tudd ko parce que sëñ Talla Xaar Tall Seck nekk sa bopp ba ak soxna Ndeye Fatou euh, di madame Diop dellu rek di woo euh, daayira gàdd ngay sëñ Ibrahima sama soppe nekk sa bopp ba noonu la ci delloo rek euh, di woo daayira Kër Njaga Sarr Alaaji Ñang suñu xarit di suñu sopp moom it nekk sa bopp ba di woo daayira xombal Alaaji Taala Seck Taala Xaar Ñang di suñu doomu di jaay moom it am pas-pas lool taxawaay bu rafet lool macha allah ñu ngi koy woo di koy njigal bis bi di woo daayira Mbuur ak daayira daayira képp koo yaa ngi dégg sama kàddu ak foo mën a nekk te bokk Cenaba ak daayira ba nekk ba si euh, abul daayira eh, daayira kajoor Thiénaba kajoor waaw ndax Thiénaba kajoor it wax dëgg yàlla ñëpp xam ne dañ ko suñ bàyyi suñu a dañ fa am cër am si soxna kenn mi nga xam ne dañu yëkkatoon jox ñu ko waaye tamit yàlla dama faa joxaat cër si suñu diggante ak rakko xalifa ba muy bàyyi Alpha Mamadou waaw kon ñu ngi leen di woo di leen yëgal bis bi. woo daayira Imam ak daayira yu seex Ah, parce que bis bi seen bis la ku jëwit ñoom ñu leen war a teeru ñoo leen war a dalal ak daayira Hindou Mahi bi nga xam ni wax dëgg yàlla ñëpp xam na ni ah, ñoom ñooy dalal gan ñi balaa kenn génn ñoom ñoo daan génn tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëpp génn ñëpp toog ñëpp kontaan waaw kon loolu ñu leen di woo di leen jégal bis bi di ñaanal yàlla yaan ci àll yóbbu jàmm jabar goo xam ñoom kenn la suñu ñoom it muy waa kër Alaaji Madike Njaay suñu baay wax dëgg yàlla moom it ne bokk si mbokk yi di euh, rakk ci koo xam ne mu nekk xalifa nekkoon na xalifa sax de Thiénaba Xabaan ak ñam ci daan taxawee rafet lool kaar la daan jël wax dëgg yàlla ànd ak jabootam gépp ñëw bi mu génnee ah, damay léegi it encore ak njabootam noonu la ñuy def kon ñoom ñu leen ci woo xam ne bis bi seen bisa am na nañu taxawaay lool. noonu la ñuy delloo rek woo daayira Kër bay Sàll te Baay Baax nekk sa bopp ba ñëpp xam taxawaay ma ak pas-pasam ñu leen di woo di xam ne gàmm gi seen gàmm la. Ah, daayira mbaawaan daayira beer daayira yëpp ñu leen di woo doo lay delloo rek di woo monsieur le di suñu xat di suñu soppe yàlla rek tax ñu ngi koy woo si bis bi amoon si taxawaay yu mag moom it wax dëgg yàlla di woo ah, monsieur Abdi Ñing moom it rafet na lool ah, si gàmm gi. kon ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla yan ci jaay sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki julli yi mbokki taalibe yi. maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di jëlee ci nuyoo bi nag sunu sëriñ Baye Assane Seck di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér noonu lay jàllale di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxo imam sëriñ Cheikh Amadou Seck mu jàllale ñu ko ci mboolem imam yi bokkal jumaa ji yëpp ak mboolem imam yi nekk ci dëkk bi te noonu laa jëlee nuyoo bi di continuer ci sëriñ Alassane Niane sekk mi nga xamante yàlla def na tey mooy moom dañ dénk dëkk bi te mu nekk suñu jëwriñ ci wàllu ndomba tànk gi nga xam ne dénk nañu ko ñu di ko jàppale ci liggéey bi yàlla na yàlla defal ko ci ndam rëy ci barke yonent bi euh, di leen wax rek su ngeen gisee jotaay bi ak woote bi ngeen xam ni la daan xew moo xewati mooy lan mooy bisu maam Daawur Jóob Canaba Xabaan Canaba Xabaan nag ku xamul dégg ko ndax li tax ka fa tëdd moo tax mooy maam Daawur Diop ndax ku ma ku xam maa Amari Ndaak rek xam nga maam Daawur Diop ba tax na ñu toogaat fii fas yéene woote di ko waajal bisu mag buñ ko daan defal at mu jot ñi sant yàlla baax moom mi ñu may ñu fekkiwaat ko nii ba toog fii di woote waat pour fas yéene defaat bis boobu maa ngi woo nag sama mbokki chef de quartier yëpp bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ko naa leen quartier yëpp fukki quartier ak ñaar waxuma rek chef de quartier mboolem ñu dëkk ci quartier bi ñëpp na ngeen ñëw ci Raba Xabaan maa ngi woo monsieur le maire Alaji Talla Diagne di sunu xarit di sunu soppe noonu la ñu wooyee itam sous-préfet Babacar Wade noonu laa ko ni di wootee di woo commandant Ibrahima Faye sama xarit moom it maa ngi ko woo ci bis bi ndax bis bi dafa nekk bis boo xam ne bis bu rëy la ci ñun maa ngi am lu may dénkaane rek mooy ci wàllu chauffeur si képp ku yor oto di ñëw ñi ngi lay ñaan na nga def ndànk te bu kenn siir sars nga ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñi ngi ñaan mbooleem ko fa ñëw ci dëkk ba yàlla na nga fa yokkoo waaye bu fa jëlee mukk wàññent su ko defee eh, ñun ñëpp yàlla dool ñooy dimbali ah, lépp fa jaamu wala ñaan ko fa yàlla yàlla nangu ñu ko def fule ñu ko kaddu yi may yëkkati maa ngi yëkkati ci kaw ndigal ndigal li mooy ba mu laa waroon jëkke sax mooy suñu kilifa Serigne Maodo Diop nga xam ne tey yàlla dogal mooy xalifa maam Daawud Diop ci Canaba ak sama waajur bi ma bàyyi ci kër gi mooy aji awa Diop di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ndax ñoom wax dëgg yàlla bu dee ci kaa wàllu Maodo fi mu nekk ci famille Ndiobène moo ci mag bu dee ci deret ñi demoon jiyaan su ma juumul defe naa ne aji Aba Diop moo fi ci kaw suuf yàlla dafa yàgg te wér bi jaay nabi saa ñu yàgg koo gunge ñu itam Alaaji Moussa bis daal xam naa ni ñu ko daan defee rek incha allah bëgg na dix heures pile ñu départ fii ci Thiénaba Seck uti Thiénaba Xabaan comme niñ ko daan defee rek kër aj awa Diop la ñu déparé incha allah ci kàttanu yàlla fas yéene teel a dem Thiénaba Xaban ndax da ñaare bu ñu naajee rek dañuy fekk ñu yore kaamil ba pare ci kaamil toog diñu xaar pour jàng xatmu bi tant que soxna si agsiwul duñu jàng xatmu bi moom moo tax nag mu bëgg ñëpp nañ teel a jóg dix heures ñu départ ci jàmm egg ci jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu sama kilifa ma bokkal jotaay bi yëpp di leen ñaanal yàlla mucc bu ànd xéewal di nuyu suñu xalifa sénéral baay Assane Seck yal na yàlla wéral ko yàggal ko suñu kanam ci barke Seydina Mohamed suñu jotaay bi nag boo ko gisee xam ni suñu maam lañuy wooteel muy maam Daawud Diop comme nañ ko daan wootee rek wax ji sax xam naa jërul muy sori ndax suñu kilifa fi kilifa yi fi jaar daanaka wax nañ lépp waaye faaw jigéen woo moroom jigéenam di woote rek comme nañ daan wootee di jiital ci woote bi suñu yaay pendaloo mi nga xam ni tey ñu ngi ci këram mu yóbbul ñu ko ci koñ bi yëpp di woo suñu mbootaay soxna Faatu Seck mu sëriñ a Seck boroom digal di woo mbootaay soxna Dieng Ñang di woo mbootaay soxna maam Faama Diouf di woo mbootaay soxna Siini Fay di woo mbootaay boo xamante ne nii so Jóob sëy ak Sala sëy di ko teg ci loxo soxna Maguette Gueye mu yóbbaale ñim ko bokkal ñëpp di dugg ci koñ bi nag ñi nga xam ni mooy suñuy dëkkandoo te heure bu ñu jógee ñu jug kër dugg ci kër yi yëpp rek moo ñu waroon waaye xam naa du yomb ndax bi moo ko am moo ko mayewul di dugg kër soxna Aji Njaay di woo ñu fa nekk ñëpp dugg ci sëg Baye Maamu Cissé soxna Jaal fa di woo ñu fa nekk ñëpp dugg ci se soxna Ayda Jaañ mu ngi fa di woo ñëpp dem sanc ba teg ko ci suñu loxo yaa ki na sekk mu yóbbaale géew ñi ci des ñëpp di ñaan suñu mais di nga xam ne ñoo des ci kër ga soxna Ngoma Kayre soxna Mbène ba Ndeye Badiane ak euh, yaa Xadi Sawaare maam Jaal maam Jaal Diop yal na yàlla bàyyi leen suñu kanam ñu gunge ba ci kanam kanam ci barke Nabil Moustapha yal nañu yàlla jàppale ci ñoom kàttanal ñu leen may ñu leen ñu wër ñu toog ñu wéttal ba ci kanam ci barke Nabil Moustapha ñun daal bàyyi wuñu kenn ñu ngi dem ba kër ba Abdoulaye Mbuub suñu yaa koddu ñu ngi moom mu teg ko ci loxo njaboot gi yëpp dem caameen dem kër yaa Sooda Gay ñoom it ñu ngi leen di woo di woo soxna baam bi Fay teg ko ci loxo moom mu yóbbaale waa mbuubeen ñëpp ñu ngi woo daal dëkk bi yëpp daal bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ndaw ñu ngi woo ñëpp daal ñun amuñu lul bisu maam Daawud Jóob moom lañ am bu ñu wootee rek waa Njóobeen bu ñu toogee télé di woote rek maam Daawud Jóob lañu wooteel kon ñun amuñu lul maam Daawud Jóob moom lañ am moom moo ñu ñor képp koo nga xamante ni nekk mu ngi safoo waa Njóobeen ñu ngi lay woo ca ne ba xaabaan la 6 mai ci la rendez-vous ba xam naa ni moom koo dem xaabaan rek xam ni moom xéewal yaa ngi fa ni gaañ tonto Ndiame moom daaw dani ma maa ngi soog a gis mun ma soxna aw ma ne ko ah mu ne ma waaye misu yi moom pour lan la man ko misu yi daal la ngi nii man ko ginaar yaa ngi nii dañoo defar mënatuñoo defar ma loolu ma mun ma koo gëm man ko nañ dem ba ca waañ wa ba mu demee yaakaar naa li mu doon xalaat yëpp fekk na ko fa xéewal yaa ngi fa lépp nga fa ni gaañ xiif ak mar moom incha allah du fa am ñu ngi woo waa njaayeen yépp dugg suñu kër nag di woo soxna asungom la ñuy teg ci nuyoo bi moom lañu ñuy teg ci loxoom mu eggalil ko ñëpp soxna Awa Gaye moom it dugg paaleen soxna Ndey Maane mi ngi fa ngayeen bàjji assa lañ koy jox mu yóbbul géew ñëpp soxna maam Sadia soxna Roqaya Njaay soxna Marema Mbuub ñu dem kër oustaz Aline Gueye teg ko ci loxob suñu yaay Seyna bu lay mu yóbbaaleel ñëpp jéena ba siise soxna wali mbuub bàjjen fari sekk dem kër Mbaye Talla Sawaare moom it teg ko ci loxo soxna Ndeye Diagne Sawaare mu yóbbul ñëpp ñun daal képp kuñ tudd rek dañoo juum ku lim di nga juum waaye ñun am nañ yéene pour woo ñëpp le 6 mai daal suñ sañoon cene ba kenn du fa des rendez-vous ba foofa la ak suñu yaa Ndeye Tall suñu yaa Ndeye Tall moom waaw dafa am moom it cër ci bis bi ndax soxna Maguette Diagne moomu moom it mu ca këram ñu ngi koy woo moom ñoom ñëpp soxna Maguette Diagne di woo waa këram ak sëriñam bi ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di woo. Assane Ndeye Ndiaye Assane Fall tamit maa ngi leen di woo soxna Anna Seck moom it dafa am cër ci bis bi ñoo ngi koy woo mbootaay soxna kan di woo faatu Fatou ba Gaar di woo faatu gay Gueye ma madame Diop moom it am na taxawaay bu rafet ci bis bi buy ñëw moom it day ànd ak ñu waa quartier bi ñëpp lay indi macha allah ñëw nag futteeku nekk nit ci liggéey ba moom it maa ngi koy woo. di bàyyiwuma kenn daal ñoom ñëpp maa leen di woo asalaamaaleykum waa Njóobeen soxna Ndey Xadi Jóob Màgget Jóob soxna Ndey Kànji ñoom ñëpp maa leen di woo Faat Jibi Jóob waa Isa Njaay soxna Jama Njaay ak soxna Ibrahima Saari ñoom daal bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa leen di woo ñu ngi leen di woo daal le 6 mai rendez ba. foo tamit soxna Jóob ba Kayre waa Ñangeen waaw maa ngi leen di woo waa Kër Baay mu ndaw waaw maa ngi woo tamit waa Ngembe kii suñu sama wujj boo ñaaw boobu soxna soxna Jaw Fara moom it maa ngi koy woo maa ngi woo soxna Ndey Jaañ Baay moom it waa Kër Baay Daam Caam ñëpp daal maa ngi leen waa waa Taaleen waa Fayeen waa Njaayeen ñëpp daal maa ngi leen di woo waaw maa ngi ku ma tudd rek na nga xam ne sama xol mu ngi ci yow maa ngi woo ñëpp daal asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man de xam naa ni sant leen rek laay def ak gërëm leen ndax ndax seen taxawaay dafa rafet kenn ku ne wax nga li nga war a wax waaye nag dina am ñu ma woo ci koñ bi nga xam ni moom laa dëkkal ku mel ni maam Talla Diop a ah, ñoo ngi koy woo ci bis bi waaw ndax Baye Mour Diop aadama baay Mour Diop aada ak sunu baay la woon waaw xel day fàtt waaye fàttewuñu leen ñoo ngi koy woo di woo Coon Diop mu jël euh, woote boobu joxal ñu ko waa Njóobeen googu yépp ak Tanor Diagne ñoo ngi leen di woo waaw léegi nag li fi des mooy yéen ñi laay sant li ko dale ci Baye sëriñ ñëw ci eh, baayam bi toog ñu eh, di Modou ngoom Diop ñëw ci baayam mbële di sëñ Baara ñëw ci baayam bi nga xam ne mooy sëñ Seexu ak baayam Baye njàmme Guèye Baye Ndiame Guèye moo ko eh, Baye Pape Guèye defe naa ñoo bokk ndey ak baay bokk ak ñun ñi benn ndey ndax yaa dëbbal ak sama yaay ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon ñoo ngi ñaan rek yàlla fekke bis ba di ñaan lépp rafet comme ni mu daan rafete wax dëgg yàlla jësaakumu laa ana xere jësaay rek la ñuy wax ndax mag ñi ñoo fi waroon a toog ku mel ni maa jooja nekku fi waaye bàyyi sëriñ moom matale na lépp kon sëñ njàmme bis baa ngoog bis baa ngoog bis baa ngoog jësaakumu la ana xere Euh, jërëjëf kon mbokk yi euh, woote baa ngi noonu muy gàmmu ba Xabaan ñu war koo def euh, samedi le 6 mai 2023 mu dajanteeg 35e édition ñuy ñaan yàlla rek yàlla nañ ci àgg ak jàmm ci barke Seydina Mouhamed salaahu salaam lépp loo xam ni ñaan nañ ko ci rek yàlla nangu ko waaye njabootu Baye Maodo Diop bi nga xamee ni mooy xalifa bi ànd na ak soxna Awa Diop waaye ànd ak monsieur le médiateur Serigne Diop. ànd ak Serigne Maajooja ak kilifa yi euh, njóobeen yi nga xamee ne macha allah ñoo fi nekk ñoom ñëpp te Serigne Khalifa Diop teewal leen fii euh, ci jataay bi ànd ak euh, njaboot gi ñu ngi woo monsieur Babacar Wade su préfet bu Thiénaba woo tamit monsieur le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune fàttewuñu commandant Ibrahima Faye comme ni ko Baye Cheikhou També du waxe waaye fàttewuñu tamit honorable député Omar Sy wooteem ñu koy teg ci loxo Baye Serigne Diop macha allah Seck Euh, mu jàllaleel ñu woote bi waaye fàttewuñu honorable député Mandiaye kebe di ko teg woote bi ci loxol El Hadj Pape Mor Gueye euh, honorable député Ismaïla Diallo te mu nekk Thiénaba Gare macha allah moom tamit euh, ñu ngi koy woo ak ki nga xam ni Haut Conseil des collectivité territorial la muy monsieur Abdou Gningue nekk coordonnateur u gàmmu Thiénaba moom tamit ñu ngi koy fàttali gàmmu maamam maam Daour Diop. Khalifa Ibrahima Ndiaye bu El Hadj Madické Ndiaye ñëpp xam nañ. alaaj alaaji dikk Ndiaye euh, kóllëre ak relation ak mbokk gu mu ameek waa xaban euh, ndax euh, boo ko fi daan fekk jamono yi ko fi daan fekk daaw daan mobiliser famem ñoom ñëpp rek ànd dem ànd ci gàmmu gi kon xalifa Ibrahima Ndiaye sa gàmmoo ngi noonu ñu ngi la koy fàttali El Hadj Gora Ndiaye moom tamit kazalika noonu ñu koy fàttali ak monsieur Babacar Ndiaye nekk Canaba Gaar ak monsieur Pape Demba Kandji médiateur de la République moom tamit ñu ngi koy fàttali gàmmu gi di ko fàttali bépp autorité politique boo xam ni yaa ngi ci canaba wala nga nekk ci tundub canaba euh, ñu ngi lay fàttali gàmmu maam Daawur Diop ca canaba xaban waaye kilifa yi tamit nee na ñu ngi koy fàttali dëkkandoo yi nga xam ni ñoo dëkk ak waa canaba te dëkkandoo bi rafet lool euh, di ko commencé nag ci euh, waa kër Mëgey Ndaw kër Mëgey Ndaw nag buñ ko waxee xam nañ ni sëti maam Daawur jóob ña nga ca biir dëkk ba séq ak waa kër Mëgey relation boo xam ni relation bu amaam solo la kon ñu ngi leen di fàttali gàmmu gi di ko teg ci loxol imaam ak euh, loxol chef de village bu Kër Mëgëy jàll ba Kër Mamour Pouye Kër Mamour kenn mënta woote dara ci canaba te tudduñu leen ci kon euh, ñu ngi leen di fàttali gàmmu euh, maam Daawur Diop ca canaba xabbaan di woowaa Kër may Maysa Njaake di ko teg ci loxol may sa Diop ak kilifa yi nga xamee ni ñoom la àndal waa Kër Ibra Ñaan Touba Gueye waa xay babal xay babal ak canaba benn dëkk la macha allah ñoom tamit ñu ngi leen di woo di ko teg ci loxol Baye Bada xulle ak imam Dame xulle mi nga xam ni moom moo jiite euh, jumaa ja euh, ñu ngi koy woo di woo waa xay yëpp di woo tamit waa Thiénaba Gare euh, fàttewuñu kenn macha allah góor jigéen mag ak ndaw jàll ba cawaare kër Banda ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di leen fàttali gàmm gi nga xamee ni mooy gàmmu maam Daawur Diop yàlla nañ ko fekkee te tal ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ca kàddu gu njëkk ga dégg ngeen jàngat bu am solo bi ñu Baye Serigne Diop jàngatal ci wàllu histoire waaye dellu si na Euh, ci wàllu parrainage bi Serigne Saliou Mbacké euh, bu maam Ahmadou Bamba euh, lañu jox cër bi la ko waral mooy relation la ko waral mooy démb kon moom mooy parrain gàmmu kër cana Canaba Xabbaan ren 2023 ñu ñaan yàlla yàlla nañ ci àgg ak jàmm woote teg na ci woote bu yaatu Serigne moodu Ngom Diop woo na daayira yi woo na mbokk yi woo na xarit yi waaye woo na dëkkandoo yi fàttewul kenn Euh, ki ci topp muy Serigne Cheikhou Tambédou euh, chef de village moom tamit woo na autorité politique yi ak autorité administrative yi nga xam ni ñoo nekk ci gox bi waaye woo na tamit chef de quartier yi euh, bu nee nag maa ngi woo quartier douze quartiers yu Canaba Canaba moom kenn desul kon woo na ñëpp soxna Awa Diop képp koo xam ne soxna la ci biir dëkk bi wala mu nekk ci biti dëkk bi ñu mu ngi lay woo ci bis bi nga xamee ni bisu maamam la Baye xalifa ci kàddu Baye Maodo Euh, teewal fi kilifa yi euh, moom moo ñu tëjal kàddu gi wow nag ci kong rek lay yem kon ñu ngi woo ñëpp euh, képp ko xam ni njabootu Seydina Mouhamed nga ñu ngi lay woo ci bisu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm programme bis bi ca Canaba Xabbaan bu ñu xëyee ci samedi bi dinañ jàng alxuraanul karim def ay dog ñaanal maam Daawur ñaanal mag ñi mu bokkaloon liggéey bi waaye ñaanal njabootam gi nga xam ni dëddu nañu yàlla dugaleen àjjana te ñu dëkk bu ñu paree dinañ dalal gan ñi euh, ñu ñëw benn par benn macha ñu dalal leen bu ñu demee nag ba ca ngoon cérémonie officielle bi ñuy def ci pencim Thiénaba Xabaan macha allah ñu ngi ciy xaar kilifa yi di ci xaar autorités yi bu ko defee rek ñu ñëw àndandoog ñun euh, def euh, cérémonie bi ba ca ñaan gu mujj ga. bu ñu demee ba ca guddi ga imaam Madiou Cissé mu Alaaji Taala Cissé moom mooy def waxtaan wi ginnaaw bu daayira bi nga xamee ni ñoo daan àndandoo tagg Seydina Mohamed. àndandoo sikar baatu laa ilaha illallah mooy groupe bi nga xamee ni mooy daan ànd ak sëriñ as sekk borom ndigal ndax ci loxol sëriñ as lañ ko mas di teg guddigi gi ah, bu ko defee rek nañ ko daan defee noonu lañ koy defee ñaan yàlla yàlla yóbbuñu ak jàmm ah, ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ci jaajëfal nag taxawaayu am solo yoo xam ne El Hadj Pape Abdoulaye Mbuub ah, daana ko mas a taxaw waaye sëriñ Moustapha Dieng ànd ak daayira Zikrullah moom tamit daana ko mas a taxaw ñu leen ci jaajëfal di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu ci ak jàmm départ bi nga xamee ni fii la ñuy départ yi jëm Canaba Xabbaan te njabootu maam Daawur Diop gi nekk biir Canaba ànd ak soxna Awa Diop mi nga xamee ne may tey euh, moom moo euh, dooma moom mooy doom ci maam Daawur wara a ànd ak njaboot gi dem Canaba xabbaan 9h euh, la ñu wax ni incha allah bëgg nañ ñëpp ñëw rek ci buntu kër maire Awa Diop bu ko defee rek ñu àndandoo dem uti Canaba xabbaan yàlla yàlla may ñu fekk ko jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal téléspectateurs yi nga xamee ni boobu ba léegi ñu ngi ànd ak ñun. Euh, di ñu topp ci programme bi Talla Sarr la ñu àndaloon ci caméra bi euh, Ablaye Ndaw ci ndimbal li Moussa Ndiame Guèye macha allah ci waxukaay gi ti dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak ak sutura yàlla na yàlla def ko musaawaan baawaan ci canaba ak li ko war asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa Joob yow maam dootul ñaar kooki ba gedelam toot yey daw la ilaaha